alhamdulilah kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey ay cent soixante ci suuratul aaraaf wa qatta'naahum isnatay ashrata asbaata إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي كون نجي يسال سنت سني بروم ديكو نيان مو جولي سني ننتبا محمد صلى الله عليه وآله وسلم tey jii mooy àllarbay di dëppoog juróom benni fan ci rabiul awwal sunu maam yi di ko wax gàmmo muy 1440 nekkit le 14 novembre 2018 ñu fas yéene dalaat benn bind ci téere borom bi subhanahu wa taala loolu nekk ak jaamu yàlla gu rëy ñeel ña nga xam ne dañ koy teewe waaye nekkit jaamu yàlla ci képp koo xam ne foo mën a nekk ci kaw suuf jël nga lenn ci sa jot toog di déglu la nga xam ne mooy kaddu borom bi subhanahu wa taala yàlla def na léegi ak yombal ba mu am mbokk yoo xam ne ñoo leen koy jottali lu mel ni lu aju sunu jàkka ji am na ay groupe yoo xam ne nii mbokk yi defar nañ ko soo ca bokkee tafsir bi buy pare bala ngaa tëdd mu ñëw sa téléphone yéen a ngi daan gis téléphone yi ñu daan jóor fii yépp daanaka aajeetuwu ko bu dee da ngaa bokk ci groupe yooyu am na numéro yi la cay boole bokk na ca 77 814 42 20 ñooñu di jottali kàddoog borom bi ci waxtaan yi xutba yeeg yépp mbokk loolu ci jaamu yàlla yi gën a kawe la bokk doonte ne amul lenn luy am ci kaw suuf lu dul seytaane bëgg na caa jël wàllam loolu it moo tax mbokk ñuy war a moytu fan yi am na benn vidéo bu ñuy tasaare ci whatsapp yi ak facebook yi benn xutba boo xam ne defoon nañ ko fii ay at ca gannaaw di wax ci wàllu musique ñu wëlbati ko def ko sous forme de vidéo génne ca ay nit ñu bari génne ca xatta ay sëriñ ci di ko dëppale xutba bi ñu doon xutba doonte ne sunu jubluwaay nekkul woon loolu loolu mbokk ku xamul da ngay jàpp kii day toon te yàlla mii seede seede na ne xawma ñan ñoo def loolu te du njëlbeenu yoon yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku soxna soosu di alimatu saadiya bi ñëwoon fii ne mooy secrétaire u càndum loolu mat na ñaar fukki at da ngay gis ne ci at mii passé vidéo bu ñu defar wala benn xale bu jigéen mu toog ñu jël wax ji amoon ci jàkka ji boole ko vidéo bi di ko tasaare boo koy gis mu mel ni lii kat biigle xew fekk mbir mi jege na ñaar fukki at am na beneen tafsir boo xam ne yàlla dafa def ñu cay wax problème mu njabar ñu defar benn vidéo wone benn njabarkat sénégalais wone ay numéro téléphone am ba pare jël sama tafsir def ci suuf muy wax ca kooku xawma ko mooy kan ña defar vidéo bi xawma ñooy ñan loolu moo tax ba ñi ngi woo ndawi julit ñi ñi ngi rafet njort ni jàmm rek ngeen ci bëgg defar rek ngeen ci bëgg waaye nañuy moytu yu demee noonu wala au moins au moins bala ngaa def loolu bokk ka nga xam ne mooy def wax ji nga won ko ko ne ko kat man lii dama koo defar ndax mën naa koo tasaare am déet ndax yow mi ko def kenn xamula mais moom miy wax ci biir xam nañ ko loolee kon ndaw ñi ñi ngi leen di ñaax ñuy moytu yu demee noonu donte ne bépp xutba boo jëlee ci borom xam-xam conférence ah jottalee ko na nga ko jote rek loolee ci jaamu yàlla yi gën a màgg la bokk waaye nañ moytu fiiru seytaan yàlla na yàlla musal ñu cay pexeem mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما فأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبرم مني وقطعناهم اثنتي عشرة أسباتا أمما نون لن تقلي أي دغتلين فك أكنيار نيك أي ست yoo xam ne nii ay giir lañu doon muy fukki doomi yi yanquba ak ñaar ak seeni sët wa awhayna ila muusa id istasqaahu qawmu nii lañu wax yoo ay xamale jëme ca muusa bi xeetam ñëwee di ko sàkku pour yàlla may leen ndox bu ñu naan an idrib bi asaaka alxajar ñu ne ko Muusa dóoral sa yat bi ci xeer bi fan bajasat mu daldi balle minhu ci xeer boobee isnata ashrata ayna fukk ak ñaar ci ay bëti ndox qad alima kullu unaasin mashrabahum xam na mboolem mbooloom am nit mu nekk xam nañ seen naanukaay wa zallalna alayhim alxamaam ñu daal di ñëw daal di keral ci ñoom la nga xam ne mooy niir ya xamaam mooy niir yu weex ya wa anzalna alayhim almanna wa salwa wàcc ci ñoom naan gu ñuy wax man borom xam-xam yi ñu ne def mooy naan gu xaw a dëgër la gu mel ne lem wa salwa ak ay picc yoo xam ni lenn ci sunu magi réew mi dañ ko doon méngaleeg ay cokkeer kulu min tayibaati ma razaqnaakum lekk leen ci yu tey yiñ leen wërsëgal wa ma zalamuuna walakin kaanu anfusahum yazlimuun ñoom day tooñ ñu ñu woon waaye ñoom seen bopp rek lañ tooñoon wa id qiila lahum uskunu haadihi alqarya biñ leen di wax ne dem leen ngeen dëkk ci dëkk bi wa kulu minha xaysu shitum ngeen lekk ci dëkk bi fu mu leen fa neexe wa qulu xittatun ca ngeen wax yàlla jéggal ñu ay teggal ñu suñuy bakkaar wadxulul baaba sujjada ca ngeen dugg ca dëkk ba doon aji sujuud naxfir lakum xatiaatikum daañu leen jéggal seen mboole mi bakkaar seen njuumte ya sanazidul muhsinin daañu dolli ña nga xam ne dañuy rafetal bokk julit bani israil ñooy doomi yonenti yàlla yanquub bokk na bi ñu ñëwee Égypte dem nañ ba nekk fa mbooloo mu bari am nañu ne bi ñuy gàddaay matoon nañu six cent mille am ñu ne matoon nañu sept cent mille suñu borom yàlla mu di leen teqale ci ay giir seen maam cosaan mooy yanqu waaye mujj nañ ba ku nekk ci ñoom am benn maam boo xam ne moom ngay féetewoo loolu it dañuy gis jooru ak teqale koogoo xam ne nekkoon na ci seen biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëw Madina fekk na fa ñetti giir banu Qaynuqa banu Nadir ak banu Xurayza borom bi dogal na yonent yàlla Muusa mi ngi ci désertu Sina xeet bi ñëw na ko Muusa ñaanal yàlla may ñu ndox bu ñu naan suñu borom ne Muusa sa yat bi nga dóoroon ci géej gi mu xar demal dóor ko ca xeer wee Moussa ñëw dóor xeer bi xeer bi génne fukki robinet ak ñaar loolu na waroon a jaaxal sunu maamu démb ya amma ñun ñu tombeek robinet tey loolu jaaxaluñu mu génne fukki robinet ak ñaar bépp mbooloo xam nañu robinet bi méngoo ak ñoom loolu di xéewal gu leen yàlla defal donte ne mbokk julit ñun yàlla defal nañu xéewal gu ëpp googu téeméeri yoon lu bari sunu maam yi da ngay gis waxuma dëkk bi bokk teen waaye léegi-léeg ay dëkk ñoo daan bokk teen am nañu ko yàlla nattoo ci kaw gi ba léegi ñu dem ba yàlla wërsëgal ñu robinet yi ba muy doog a ñëw néew na kër yu ko amoon robinet mbedd rek moo daan am rang bi dem ba fu kenn xamul xeex guddi xeex ak xeex bëccëg ñu dem ba fa lillahi alhamd tey kërug ndakaaru plus de quatre-vingt-dix pour cent yépp am nañu robinet bopp bal boo duggee ci kër ga ay robinet sax nga fay fekk mbokk loolu ci xéewalu yàlla yi gën a rëy yiñ ko war a sant la borom boobu subhanahu wa taala teg ci ne désert bi ñu nekk dafa indi ay niir yoo xam ne chaque jour ñoo leen di protéger ci jant bi suñu xëyee suba yàlla wàcce benn taw taw bi indi lu ñuy tudde man di benn façon naan goo xam ne dafay mel na lay bi wàcc ci ñoom ñu taataan ci lu leen neex di naan goo xam ne moom rek doy na lekk doy na naan ni noonu xam ngeen xale yi bu ñuy doog a juddu seen weenu yaay bokk na sax lu médecin yi di wax buñ ko jox lu dul weenu yaayam yàlla dolli ci it chaque jour dana am ay picc yu ndiiraan ñëw rek dal seen kaw bu ko defee ku nekk yaay jàpp la la neex loo xam ne da nga ci mën a añ reer ci bu subaa loolu amaat sunu borom nag ne leen samay xéewal li ngi noonu lekk leen naan ci waaye dañoo mujj tooñ seen bopp yàlla mu ne tooñu ma leen lan jëkk a wax Muusa mooy Muusa mënuñoo dëkk ci man salwa man salwa léegi ñaanal borom bi mu génneel ñu la nga xam ne mooy soble yi laaj yi concombre yi lujum yi waaye mënuñu dëkk ci man ak salwa rek ngir beew ga ñu beewoon dolli ca it yeneen façon beewin moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ci loolu borom bi dolli ci ne bi ñu leen di wax kaay leen ngeen dugg ci dëkk bi désert boobu yàlla téye woon bani israil def nañ fa quarante ans arbaina sana yatihuuna fi l ard ci biir quarante ans yooyu ca la haaruna faatu ci biir quarante ans yooyu ca la muusa faatu génération yi àndoon ak ñoom ñu ëpp ca la ñu faatu xale yi nga xam ne ñoo judd woon ñoom la yàlla booleeg kenn ku yàlla waxyu woon mooy Yusha ibnu Nun daa di koy jox ndigal pour ñu dem na xeex ak Palestine la nga xam ne seeni maam dañ koo bañoon ñu ne leen kon dem leen ngeen xeex ba ngeen xeexee bu ubbi dëkk bi képp kuy dugg ci dëkk bi na sujuut sujud boobu doonte ne borom xam-xam yi dañ ko doon mandargaal ne mooy rukkoo ndax islaam rukkoog sujud day weccante mi ngi noonu ca mooy kuy dugg na rukkoo jéggulu yàlla xuulu xittatun comme suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam keroog bu muy ubbi makka dafa sëgg ba bopp bi di xaw a laal baatu giléem gi sallallahu alayhi wa sallam ba mu duggee lam jëkk a def mooy dem néegu umu haani julli fa juróom-ñetti rakka ngir sant boroomam subhanahu wa taala loolu di sunna bu mu bàyyi gannaawam jihaadkatul islaam yi dëkk bu ñu ubbi la ñuy jëkk a def mooy salaatul fath mooy julli ñaari rakka sant ko yàlla et yéen bani israil képp kuy dugg ci dëkk bi na toroxlul yàlla daa dina yàlla jéggal ma ca it gannaaw jaamu yàlla bu nekk jéggal ma fa gën ndax bokk na fu seytaane di jaar doomu aadama mooy yéeg loola sa bopp mooy aloj al ojbo loola tax boo jullee ba pare astaghfirullah fa ida qadaytum manasikakum ila axiri wa astaghfirullah mooy bépp jaamu yàlla soo paree nga jéggalu loolu suñu borom nee na saay saay sa ca ñoom day wala boog loolu jàngaguñ ko ala kulli xaal borom dane sa nazidul muhsinin xéewal yi ma leen defal ca mooy may leen ngeen gañe seeni noon ba ubbi dëkk bi su ngeen ma santee day danaa leen yokk ay xéewal mbokk ihsaan mooy lan mooy ñaar bépp jaamu yàlla booy def nga defee ko naka yonent yàlla bi jàngale te jamono bi nga koy def nga def ko ca yàlla rek a tax ñaar yi bu ci manqué ihsan amatul lépp looy def te yàlla rek a tax nga koy def waaye dëppoowul ak sunna loolu di ihsan yàlla du ko nangu lépp luy sunna nga di ko def te defoo ko ngir yàlla loole yàlla du ko nangu al muhsinin mooy ñay rafetal seen jëf di ko def te yàlla tax yàlla na yàlla boole ñu ca mi ngi noonu Cheikh Ousmane فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا
barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala ni fa baddala alladina zalamu minhum noonu la soppee ñattoon ca ñoom qawlan gayra alladi qiila lahum kaddu gu bokkul ak la nga xam ne waxoon nañu leen ko fa arsalna alayhim rijzan min assama noonu lañu yónnee ci ñoom am sanji muy mbugal di am mbas moo xam ne ma nga jóge ci asamaan bi ma kaanu yazlimuun ca lañ nekkoon di ko tooñ yow yonent bi yahud yi nga nekkal ci madina wasaluhum an alqaryati allati kanat xaajirat albahr laaj leen luy mbiri dëkk ba nekkoon ca tefesu géej ga ay di teewe géej ga ca wetu géej ga id yaxduuna fi sabat jamono ñuy jéggi dayo ay yaxtaduun fi sabat ba ñuy jéggi dayo ci bisu samedi ba istatihim yowma sabti istatihim xiitaanuhum yowma sabtihim shurraa ba mu leen di dikkal seen jën ya bis ba ñu waree màggal samedi ja shurra an doon loo xam ne ni lu feeñ la ci seeni bët wa yawma laa yasbituun laa taatihim bis boo xam ne nag duñ ca màggal samedi ja jën ya daawuñu leen dikkal kazalika nabluhum bima kaanu yafsuquun ñun de nii dañ leen nattoo ca lañ nekkoon di ko génn topp mbokk bani israil yàlla dafa def ci ñoom ak kaccoorte looloo tax ànd nañu ak Yusha ibnu Nun suñu borom yàlla def ci ay kawtéef ñëw ni ci ay xadis yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne Yusha bi mu demee di ubbi dëkk bi ci ajjuma la woon bi ñu demee ba jant bi waaj a so ca dafa xaraam ci juif mu def leneen lu dul féetewoo di sabbal yàlla bi su samedi mu ne yàlla dimbali ma téyel ma jant bi ba ñu ubbi dëkk bi suñu borom yàlla téye jant bi ñu jihaad bu ubbi dëkk bi waaye kawteef yooyu yëpp teewul saay-saay bani Israil biñ demee ba ubbi dëkk bi ba xam ne seen noon yi capitule nañu nangul leen ba ñuy dugg ci dëkk ba dañ jàpp nañ loolu seen victoire bopp la ñu ne xejtatun lan ay ñun ñoo jàmbaar xeex ba gañe fi daa di wax leneen leen ni mufassir yi dañ ne ñun waaye li ñu namm mooy xabba ñun daal am pepp lañ namm waaye ay bakkaari xettatun soxlawuñu ko baddalu lazina zalamu qawlan ghayra lazi qila lahum ci noonu la yàlla wàccee ci ñoom benn musiba ba bari ci mufassiru ne ñu ne mooy peste te la yàlla wàccee ci ñoom feebar bu ñuy wax peste boo xam ne yàlla na yàlla musul ñu ci sun maam yi ma sañ koo dund fii ci Sénégal lu mel ne moom amul du choléra du Ebola du feebar la bu bon boo xamee ne nii yonent bi aleyhi salaam nee na yàlla def ko muy shahaada ñeel xeetam moom waaye nekk musiba ñeel ay noonam looloo tax jamono Omar ibnul Xattaab ki nekkoon amirul muminin ca Cham muy Syrie ak li ko wër mooy Abu Obayda amir ibnul Jarrah yàlla wàcc na ci sahaaba yi peste ba peste boobu rayoon na fa cent mille personnes ca cent mille personnes ca jamono yonent bi alei salaam mën nga ko méngaleeg un million wala cinq millions suñu jamono yi tey loolee kon la yàlla wàcc ñoom mooy peste bu bon boobee ci li nga xam ne nekkoon nañ ko di génn topp ca loolu it mbokk yàlla wax nañu aaya bu ñu mujj jàng sa nazidul muhsinin mooy su ma la xéewalee nga sant ma danaa la dolli su ma la xéewalee nga bew danaa nangu sama xéewal boole ci mbugal gis ngeen walla yàlla tegala foofu léegi nag suñu borom dellusiwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yahud yi di sikk sàkk ne yonent yàlla nga kaay wax leen histoire boo xam ne seen kanfuur yi rek ñoo ko xam mu ngi noonu seen kanfuur yu mag yi rek ñoo ko xam laaj leen seen maam ya nekkoon ca wetu géej gi ca wetu mer rouge mi ngi noonu doonoon ñoo xam ne ay nappkat lañu ñu araamal ci ñoom liggéey bi sa samedi doonte ne samedi boobu yàlla da leen koo bàyyee waaye yonent bi alayhi salaam ne ne xeet yépp ajjuma la leen yàlla waxoon ñu màggal ko yahud yi wëlbët wi ajjuma ja def ko samedi ci seeni xalaat ak yu demee noonu nasaraan yi ñëw ñoom it gën leen jéggi dayoo def ko dimanche amma ñun yàlla déppe li ñu ak àjjuma moo tax mu ne yowmal qiyaama ñun ñooy jëkk dugg ajjana yahudi ak nasaraan ya yal na yàlla boole ñu ca laaj leen ñooñu seen maam yi nga xam ne yàlla natt woon na leen ñuy nappkat buñ demee ci géej ga lii nga xam ne mooy dimanche lundi ba vendredi duñu gis dara mi ngi noonu amma bu samedi jotee nga xam ne dafa aram ñu napp jën yépp ñëw ci tefe ci tefes gi shurraa mi ngi noonu mi ngi jóge ci chanri mooy mooy tali boo xam ne dafa fees dafa dafa feeñ nga xam ne boo laalee sa loxo sax jàpp jën bu ñu xëyee dimanche jën ya demaat ah borom bi subhanahu wa taala ne nii day laa leen nattoo ngir ay kàccoor la ñu woon kon mbokk yàlla day nattu ay jaamam looloo tax yow jeune jullit defal attention sunu borom day nee woon na sahabatul kiram la yabluwannakum allahu bi cheyin min asaydi tanaaluhu aydikum wa rimahukum araamal naa ci yéen kuy aji màkk bu mu rëbb danaa nattu nag lenn ci yéen rëbb goo xam ne boo tàllalee sa loxo jàpp nga xëy suba gis njombar ci say bagage gis benn pigeon say bagage boo tàllalee loxo jàpp wala boo sànni xeer jàpp ngiree ma xam ñan moo ma ragal ci kumpa loolu tax yow ndawal jullit man ngaa nekk ci ay poste rawatina poste takk der yi ngeen xam yéen a ma gën a xam benn waay ñëw yëkkati cent mille teg sa bureau kay moom mën na am deux millions la ñuy teg ci bureau am kay moom mën na am sax lu jege cent millions la ñuy teg ci bureau am mbokk loolu forme nger yooyu natt la bu la yàlla di natt am na ku la ëpp diplôme fuuf lu mu nekkee sax amu ko ci kër ga nattu la tey jii nga yor benn kees di ko gérer société boo xamee ni nii kees gi mën nga cee jalgati kenn du ko xam parce que bu nekk ma jox leen ci misaal ak suñu góor ga Dramane Diallo yàlla na yàlla jéggal ko ca yërëm ko mu ngi noonu dana leen jox misaal na jàkka ji bi mu jëkkee pare moo ko jëkk peinture ci xaalisam boppam yal na yàlla jéggal ko yërëm ko ñun Bilal Thiam ak ñi ñu toogal ñëpp ñi ngi ko tudde woon yowmul xisaab ndax lu ma doon wax lu mu doon wax mooy bu dul woon ak yowmul xisaaba ma nekk milliardaire yaa ngi dégg France la nekkoon depuis plus de trente ans loolu kon ay nattu la nga mën a nekk ci ay place kees yoo xam ne lu la neex jël kenn du yëg loolu ay nattu la ñaareel ba itamit mooy yow xale bu góor nga toog sa nekk benn xale bu jigéen toilette comme jinni ñëw wuy si la ca banilu la dara bokk loolu nattu la yooyu yépp yow da nga cee war a bàyyi xel bépp bàkkaar bu yàlla yombal ci yow rek mi ngi lay nattu di la xool ba xam nooy réagir gis ngeen heure boo muñee muñ muñ gu rafet suñu borom yàlla bindal lu tuyaaba jagleel la lu gën loolu nga bëggoon a def li nga noonu wallahi amul looy bàyyi ci yàlla tax lu dul yàlla wuutal la lu ko gën àdduna ak alaxira kazalika nabluhum noonu lañ leen nattoo lu waral loolu mooy dañoo nekkoon ay kàccoor mi ngi noonu Cheikh Ousmane wa in qaalat ummatun minhum lima ta'izuuna qawman illaahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum 'adaaban shadiidan قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم
بارك الله فيكم وإذ قالت أمة منهم فاتلكوا البمي وخبن مولو تنيو لما تعيزون قوما لله مهلكهم مولو تخنين دي وارخيت بو خمني يالا دنا لين ألك أو معذبهم عذابا شديدا ولا من بقول لين بقول متر قالوا معذرة إلى ربكم ñu ne loolu day ngant la ñuy jël jëm ci seen boroom wala allahum yattaquun mën na am it ngiree it ne ñoom mën na am ñu ragal yàlla dellu gannaaw falamma nasu ma zukiru bihi bañ jemee ba fàtte la nga xam ne dañ leen koo waare woon anjayna alladina yanhawna ani suu nii lañu musale ña doon tere lu bon wa axadna alladina zalamu bi azabin ba'is nii lañ jàppe ña tooñoon ci mbugal moo xam ne mu tar la mu ñaaw la bi ma kaanu yafsuquun ca lañ nekkoon di ko génn topp falamma ataw amma nuhu anhu bañ demee ba jéggi dayoo ca lañ leen tere woon qul naa lahum kunu qiradatan xaasiin ñu ne leen nekk leen ay golo yoo xam ni ñu ñu toroxal lañu ñu ñu dàq lañu sori leen wa istaazana rabbuk fàttalikul ba muy yëgle sa boroom la yabaasanna alayhim ila yawmi alqiyama ne dana yónni ci ñoom ba baa bis fenc di taxaw man yasuumuhum suu al azab ku leen di mandargaal gën jaa ñaaw ci mbugal inna rabbaka la sariu liqaab sa borom yàlla ko gaaw la ci nu muy mbugale waaye nag wa innahu la gafuru rahim moom day koy jéggalaate koy yërëmaate la mbokkoo waa dëkk baa nga ne ca boori mer rouge dëkk bi séddale ko ñetti mbooloo la ëpp ci ñoom bi ñu xoolee ni natt bi leen yàlla nattu dañuy dem géej yeneen bis yi presque duñu mën a am dara samedi ji jën yaa ngi nii di leen ñaawal di cëpp cëpp ci géej gi ñu ne lii kat waras na ca sàkk pexe de ñu ne pexe bi mooy lan bu ajjuma dañuy dem jël seeni mbaal déet bu samedi dañuy dem jël la nga xam ne mooy seeni mbaal sànni ci kaw jën yi daal di jàpp jën yi bloqué leen bàyyi fa mbaal ya bu ñu xëyee suba dimanche ñëw xëcc jën yi génn leen am benn mbooloo bu ñëw ci ñoom na leen lii ngeen di def xam ngeen dafa xaram yéen a ngi napp ci bisu samedi ñu ne leen hey napp ñu samedi ñun dañoo sànni suñu mbaal rek dimanche lañ napp yaa ngi dégg ca mbokk loolu borom xam-xam yi dañ ne moo gën a bon bakkaar naxante ak yàlla nga def bakkaar bi directement moo gën masalan suñu borom day wax ne wala yonent bi alei salaam day fa wax bokk na ci fitne bi nar a dal julit nii ba tax yàlla suufel leen lam ca jëkke ida tabaayaatum bil ayna su ngeen demee bay jaayante ci naxante ci wàllu riba borom bitig bi benn waay day ñëw mu xam ne su ko lebelee cent mille mu fay ko cent cinquante mille loolu riba la léegi lu ñuy def day ñëw mu ne sëñ bi portable bi laa bëgg nga lebal ma ko lu mu la koy lebele cent cinquante mille ñu doo d'accord lebal naa la portable cent cinquante mille mu wëlbati ko nag wax léegi kaay ma jaay la ko ñaata cent mille bu ko defee nga jël cent mille jox ko moom mu yoroon la cent cinquante mille mbokk loolu ak nga jox ko cent cinquante mille mu yor la cent mille quelle est la différence kon mooy naxante la ak yàlla loolu mbokk lu grave la am na ñoo xam ne jàpp nañu ne dem di njaaloo nit ñi dañ leen di wax yaa ngi njaaloo yaa ngi njaaloo ñun loolu ñuy def kon dañuy takk takk rek di takk rek cinq six sept huit neuf dix quinze cinquante c'est des femmes mi ngi noonu mbokk loolu ki demoon di njaaloo moo gën ndax kii njaaloo moom xam ne day njaaloo mi ngi def bakkaar yow nag da ngay njaaloo ba pare dag dagga dag daganal ko encore loolu kon la waa dëkk ba doon def ah ñii biñ leen di tere mu am troisième groupe troisième groupe bi ñoom dañoo ñëw ci ñi leen di tere naan leen bu leen sonal seen bopp ñun ñëpp xam nañu napp samedi xaraam na ñoom ñu ñëw fi di napp samedi bàyyi leen leen xam nga ñi fokk yàlla mbugal leen wala mu wàcc ci ñoom yàlla alak leen wala yàlla wàcc ñoom mbugal bu tar loolee borom xam-xam ya doon tere lu bon ne ah ñun kat fokk ñu wax ngir ñu am lay suñu kanamu boroom kan la waay jàpp leen loolu mbokk yonente bi alayhi salaam dane ki gis lu bon na ko dindi ak loxoom boo ko mënul dindi ak loxoom wax ca la nga man su dee ne nag ragal nga wax ba day jur fitna na la naqari sa xol mais wax bi bu jurul fitna da ngaa war a wax loolu mooy tax ëllëg nga am lay sa kanamu boroom amma lu bon bu tasaaru ci kenn waxu ci mbokk ñépp ñooy responsable bu booba lii la boroom xam-xam ya tontu ña nga xamee ni nii ñooy ña leen doon tere ni bu leen leen waar borom bi nag ne falama nasuma zikru bi ba ñu demee ba gaa yu doon def lu bon ba ñuy jëfe ay nasuumay taraku même bu dee fàttewuñ wax ji mais maadaama jëfewuñ ko ñoo ko ko fàtte ñoo yem continuer ca jëf dañ doon def borom bi subhanahu wa taala ne dama xëy xëy xëy daa di musal ña nga xam ne dañ doon tere lu bon ña nga xamee ne dañ doon def lu bon ma jàpp leen ci mbugal mu tar ca lañ doon la nga xam ne moom lañ doon def borom bi ne bañ demee ba jéggi dayoo dama leen wax doon leen ay golo xaasiin mooy ñi nga xam ne dañ leen a toroxal dàq leen ci yërmande yàlla loolu la yàlla jëf leen ci ak waa dëkk ba ca mooy dañoo xëy benn bis rek ña nga xamee ni nii ñoom ñooy ñoo baax ña dañoo demoon ba beru na ñun du ñuy jaxasooti ak yéen waaye benn bis lañ xëy rek ñëw fekk ñi doon napp bisu samedi ñoom ñépp soppali ko ay golo dëkk bi yépp soppali ko ay golo kër goo dem xam borom kër ga ak ña fa nekk ñépp ñu soppali ko ay golo gaa yi taxaw waar leen na leen lii lépp waxoon nañu leen ko ñuy junj mënuñoo wax ndax ay golo lañu waaye xam ne li ñuy wax su ko defee ñu def fa ñetti fan yàlla faat leen ñoom ñépp te mooy bépp xeet bu yàlla def mas te mooy soppi leen du ñu mën a dundaat plus de ñetti fan ñu daal di faatu xëy na bu doon am na ay sëb yu ñu fi bàyyi mooy ñoom Darwin ak ña gëm la ñu gëm comme ñoom lañu ay golo ñooy cinéma waaw waaye ala kulli xaal ku yàlla soppi du dundaat du amaan njaboot du paase ñetti fan léegi nag borom xam-xam yi am ixtilaaf dëkk ba ñetti parti lañu woon ñii ñoo doon jalgati ñii ñoo doon tere am ñoo xam ne ñoom jalgati wuñu tere wuñu bal dañ doon critique sax ñuy tere naa leen bu leen sonn suñu boroom ñaari parti yi la wax ñi doon tere musal naa leen ñi doon jalgati alak naa leen troisième groupe ba nag nu ñu demee am ci ay boroom xam-xam yu ne ñoom it dañoo alko ndax maadaama ñu ngi doon gis lu bon ci dem ñu tere ko dañoo alko am ñu ne déedéet yàlla ña doon jalgati la alak kon yàlla da leen musalaale doonte ne boroom xam-xam ya gën a mucc ayib dañ ne ñun daal dañuy noppi seen mbir ni yàlla noppi seen mbir jeex na ñett lañ woon ñii ñu doon jalgati yàlla nee na alak naa leen ñii ñu doon tere yàlla mu ne musal naa leen ñi ci des yàlla nopp ci ñoom dañuy nopp ci ñoom mi ngi noonu waaye dala ala kulli xaal seen mbir moom léeru mi ngi noonu ala kulli sunu borom yàlla nag ne yàlla day ca la dogoo ci bani israil ne ba ba àdduna di tukki danaa leen yónnee ku leen di teg mbugal yu tar ngalawaay mbokk gis nga yahud fi yàlla jaar ak ñoom ci mbugal amul benn xeet bu yàlla jaar ak ñoom ci kaw suuf xaw ma ñaata xeeti nekk ci kaw suuf waaye fi yàlla jaar ak ñoom yàlla jaaru fa kenn yéen ndaw ñi bokk na lu ci gën a récent mooy fi Hitler jaar ak ñoom am déet ah ci la nga xam ne ni moom mooy jamono Hitler ci guerre 39 45 gi dema noonu dañ naan rey na ci ñoom lu jege 6 millions de juifs ci 6 millions en 1940 daanaka bay xool jege na 18 millions wala lu ko ëpp bu doon suñu jamono tey la ñuy wax reyin ban reyin bi gën a ñaaw ci ay rey ñii ci ay four ñii ci ay camp de concentration yoo xam ne dañ leen fay bàyyi du ñu lekk du ñu naan ba mu nekk ay squelette ay yàq loolu la Hitler jaar ak ñoom waaye de manière générale lu Europe yépp nga xam ngeen Europe christianisme moo fa nekk te européens yi comme Isa la ñu gëm dañ jàpp ne yàlla Isa ñoom yàlla la ñuy jaam Isa la ñuy jaam dañ jàpp ne yahud yi ñoo rey seen yàlla Isa loolu tax chrétien ki mu gën a bañ ci kaw suuf mooy juif sama mbokk bi historien Sakho yàlla na yàlla dund ko wér nee na boo xoolee histoire de la France am na ay jamono. ña nga xam ne ñooy kilifa église bi dañ ne un bon chrétien chrétien bu baax chaque mardi war na pes bi mu juif yaa ngi dégg yaakaar naa fa la war a fi jëlee talaata ndax bu dee talaata da ko rek mooy tëgg na ko mu pes chaque mardi war ngaa pes ab juif toroxal bu ne lañ leen toroxal ba ñoom lu ñu daan wax tey jii li ñuy bàkkoo mooy plus jamais ça sunu maam yi dañ daj dootuñu ko dajaat waaye dañuy kàcc suñu borom moo ne woon illa bi hablin min allah aw hablin min annas lenn rek moo leen di musal kóllëre gu yàlla jàpp ak ñoom ca mooy ñu ñëw dugg ci lislaam wala yàlla boole leen ak ñu leen protégé ca tey jii ñan ñoo protégé juif yi mooy Amérique Angleterre France waaye Xadaafi ma nga ca boromam daana wax ne sunu problème du Israël nee na bu doon Israël yi rek doy ñu ñu benn xëy ñun arab yi waaye gis ngeen américain yi nit ñu fonk Israël fokk fonk ngi sax état bu nekk biir Amérique loolu nag mbokk ci nattu yàlla la heure bu ko neexee mu teggi ko heure bu neexoon yàlla wëlbati xoli américain yi ñoo bañ yahudi yi comme naka na leen jullit ñi bañee waaye tey la ak ëllëg wallahi du jeex li yàlla wax du dañ ila yawmil qiyaama duñu toog benn période lu dul yàlla subhanahu wa taala dana yónni ci ñoom ñu leen di toroxal ba toroxtaange bu mujj ma ngay jóge ci almahdi ba yàlla di mujj wàcce mu ànd ak Isa ibn Maryam ñooñu da ngay gis ne almahdi dana ànd ak jullit ñi xeex yahudi rey leen tasaare leen ci kaw suuf ba yonente bi alayhi salaam nee na montagne yi garab yi daañu wax ay yéen jullit ñi kaay leen am na yahud yi laqatu sunu gannaaw ba mu des garab bu ñuy wax xërxad ndax xërxad ci garabu yahud yi la bokk lii mbokk moom la suñu borom wax ci xeet bu bon boobee borom bi nag ne ku tar ay mbugal la waaye kuy jéggalaate la mi ngi noonu Cheikh Ousmane
وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ويقولون سنوقع لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا إنا لا نضيع أجر المفلحين jazakallahu xayran suñu borom mu ne wa qataanahum fi l ardi umama noonu lañ leen daggate ay teqalee leen ci kaw suuf ñu doon ay giir minhum saalixuun am na ca ñoom ñu baax de wa minhum duuna dalik am na ci ñoo xam ne yiis nañu loolu wa balawnaahum bilxasanaati wassayiaat ñu daal di leen nattoo ci ay yiw nattoo leen ci ay ñaawteef laallahum yarji'uun ngir yi ñoom ñu daal di dellu gannaaw fa xalafa min baadihim xalfun mu wuutu ci ñoom la nga xam ne mooy ak kóotaay mi ngi noonu arab bu ne xalf rek musiba la ci ju ñu bon la ci jubli bu ne xalaf mooy ña nga xam ne ñu baax la wa wari warisul kitaab ñoom ñoo donnu téere ba yaaxuzuuna arada haza al adna ñoom day ñu ngi jël lañu gaaral ci dund bu jege gi ca mooy alali àdduna wa yaquluuna sa yuxfaru lana gannaaw bu ñu ne ah yàlla danañu jéggal waay wa in yatihim aradun mislu heure bu leen dikkalee beneen xéewal bu mel noonee yaaxuzuhu ñu wëlbati ko waat jàppaat ko encore moom moom alam yu xas minhum misaaqul kitaab xanaa ñoom jàpp ñoom ñoom kóllëre téere bi allah yaqulu ala allahi illa alxaq ca mooy du ñu waxal ci yàlla lu dul dëgg rek wa darasu ma fihi te ñoom day jàng jàngoon nañ la nekkoon ci téere boobee wa daarul axiratu xayr ca it dundug kërug alaxira ga mooy la gën lillazina yattaquun ñeel ñi nga xam ne dañuy ragal yàlla afala taqiluun ama ndax du ngeen xellu walazina yumassikuuna bil kitaab ña nga xam ne nag dañuy mooy mooy jàpp bu dëgër ca téere ba day wa aqaamu salaa daal di taxawal julli inna la nudiu ajra al musli muslihin ñun day duñu neenal mukk yoonu ña nga xam ne dañuy rafetal mi ngi noonu suñu borom wax nañu ba ñuy dal dars bi qattaanaahum isnatay ashrata asbaata mu ne teqalee naa leen ay famille amma fii mu ne qataanaahum fi l ard tasaare naa leen ci kaw suuf te it noonu la ñu tasaaroo ba léegi buñ la doon wax juif yi nekk ci àdduna bi il faut à peine quinze millions maximum bu dee ay vingt millions matuñu ko dañ naan la am na ay six millions yu nekk fële nga xam ne mooy Palestine am na tant de millions yu nekk fële nga xam ne Amérique France Russie kaza wa kaza suñu borom mu ne nii laa leen tasaare ci kaw suuf am na ci ñoom ñu baax am na ci ñoom ñoo xam ne ni baaxuñu te loolu it mooy maandu teg lislaam moo ko amul benn xeet bu yàlla jël rek ne ku ca bokk da ngaa war a bon déedéet la ëpp ci ñoom ñooy bon waaye juif bu bëgg a baax da ngay baax moo tax xattaa ci Madina am na ca ñenn ci ñoom lu mel ne Abdullah ibn Salaam Kaabul Axbaar ak ñeneen ñoo xam ne dañuy tuuboon dugg ci lislaam borom boobu nag subhanahu wa taala ne ci histoire nattu naa leen ci ay yiw bil xasanaat may leen pouvoir may leen kattan bokk na ca lu mel ni jamono yu neen ci yàlla Daawud ak Suleymaan ñu yoroon ay nguur waaye bi sayyiaat nattu naa leen ci yu tar yu metti bokk na yema leen ci mujj a wax loo xam ne ma tëggul sax un siècle ñu ngi noonu borom bi nee na yii yépp ngir ñu dellu gannaaw e way nga la way yow jullit xamal ne xéewal yi la yàlla defal dala koo defal pour nga jublu ci moom sant ko natt bi la yàlla teg dala koo teg pour nga dellu ci moom torox lool ko lii mooy mbir jullit xéewal da koy jegeel yàlla natt da koy jegeel yàlla suñu borom yonente alayhi salaam mu ne ajaban li amri l mumin inna amrahu kullahu lahu xayr yéeme na mbiri julit léppam yiw la su ko yàlla xéewalee mu wëlbati ko santaat yàlla mu nekkaat xéewal gu dolli ci ko ay xéewalam su yàlla tegee ci moom ay natt mu delluwaat ci yàlla muñ gu rafet loolu wëlbati ko nekk xéewal gu delluwaat ci ka ci kawam mi ngi noonu laallahum yarji'un ngiree ñu dellu ci yàlla waaye borom bi mu ne ñoo baax ñooñu yàllay tagg bañ fa jógee day am na ñeneen ñu leen wuutu ñoo xam ne ñoom àdduna rekk moo leen itteel dajale àdduna rekk moo leen itteel boole caag jàpp ne lu ñu def yàlla baal leen gaa yi lii ak méngoog lu bari suñu sëriñi tey wallahi mbokk Sénégal yàlla may nañu fi ay sëriñ soo xam ne jamono ba ñuy wooti lislaam wooti lislaam yombul ji def nañ ay effort samp ay daara woote ci diini seen jamono alal amul woon mais da ngay gis ñu bari ci ñoom bañ fi jógee seen njaboot dañoo wëlbati mbir ma def ko nguur ay pale yoo xamee ni nii bari na buur yu ko amul woto yoo xam ne bari na buur yu ko amul ay jongama yoo xam ne naka noonu compte bancaire yoo xam ne ay milliards ñoo ca nekk lu tax mooy créer nañu ay mbir yoo xam ne jàpp nañ lu ñu def yàlla baal leen am na ci kilifa yu mag yu taxaw naan ñun suñu ki ñuy topp yàlla da koo baddil baddil mbooloom ba ko ku ñu baddil mooy frontière yi yàlla doon wax yii araam na yii araam na yéen moom baddil nañ leen fu leen neex jaar àjjana ngeen jëm am na ñoo xam ne créé nañ ay mbir yoo xam ne masalan benn salaatu ala nabi bi boo ci waxee benn rek gore nga ci sawara àjjana direct nga jëm waxuma la ka koy duwaay benn rek su ko defee ñu jàpp ne lu ñu lu ñu lu ñu def yàlla subhanahu wa taala baal leen wallahi du rajo du télévision du dara maa taxaw benn góor taxaw ne boo xëyoon suba ren di juróom-ñaari nit wëlbatu ko wax benn per ci sunu salaatu bii ñuy salaatu ne yàlla baal ma automatiquement yàlla far bàkkaar yépp mbokk lii ay mbir la yoo xam ne mooy li yàlla waxoon juif yi ak nasaraan yi lu tax yàlla di ñu ko nettali pour bañoon ñu jaar fi ñu jaar loolu rekk tax yàlla dañu ko nettali mais malheureusement suñu borom nee na loolu lañ leen def borom bi subhanahu wa taala nag ne bu ñu wëlbatikoo leneen lu ñëwaat ñu jëlaat ca mooy bu doon dañoo ñàkk moo tax ñu jël lu xaraam ñu ne waaw waaye même bu ñu amee suñ gisee leneen lu xaraam dolli ci encore ne yàlla danañu baal borom bi nee na moo ne day jëloon naa ak ñoom kóllëre rek téere bi ca mooy bu ñu waxal yàlla lu dul dëgg cay gaa yi li ñuy wax ci rajo yeeg télévision yi ne yàlla nee na yàlla nee na ndax loolu yàllaa ko wax ah wallahi da ngay gis na sori nag la yàlla wax ca suñu borom mu ne dara suuma fii naam am nañ ay nit ñuy woote fii diine di xam ne ñun jànguñu dara waaye du ñëpp am nañu bari ñuy woo ay nit di leen dévier di leen jëriñoo et pourtant jàng nañu xam nañu lii la yàlla bëgg mais seen bànneexu bakkan moo leen ci yóbbu borom bi ne darasu ma fihi jàng nañ la ca nekk al yahud li tax yàlla tudde leen maxdubi alayhim ñoom ñéppay jàng xam nañu ba pare topp seen bànneexu bakkan borom bi ne moo ne day newoon naa leen alaxira moo gën ñeen ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ndax du ngeen xellu wallahi lazi la ilaha illa huwa benn waay bi nga teete ci lislaam gindi ko ba pas-pasam rafet muy jaamu yàlla moo gënal ñu ne la États-Unis yépp yaa ko moom di loolu la yonent bi alayhi salaam wax day kon nga la waay yow mi doomu sëriñ jàng sa maam doon woote ñu jàngal la alquran jàngal la diine nga la waay bul weccee loolu àdduna fexeel doon koy woote ci njub daal di gindi ci nit ñi ci njub bu dee teraanga àdduna rek yàlla lu ko garantir suñu borom moo garanti ne man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mumin fa la nuxiyannahu xayaatan tayiba ku def lu baax danaa ko garanti dund gu teey wooteel ci yoonu yàlla ànd ak nit ñi teete leen ci yàlla wallahi kenn ko ci réussir rek moo gënoon toutes les quatre-quatre réunis toutes les palais réunis ci kaw suuf benn jaamu yàlla boo gindi teg ko ci yoonu jub moo gën loolu moo tax borom bi nag daarul axirati xayr xanaa àndul nag seen i xel mi ngi loolu borom bi nag bàyyi loolu daal di tëje ne ñi nga xam ne dañoo ngoy ci téere bi mbokk ngoy ci téere bi yàlla bi mooy ñëkk a gëm ña koy jàng fa lillahi alhamd ñu ngi sant yàlla yàlla na yàlla saxal ko ci ñun alors bu ne dinañu daje fii jàng téere bi yàlla bi jéem a xam la ca nekk jéem koo topp ca loolu it ku nekk ci ñun war naa fexe ngoy ci téere bi yàlla bi ngoy loo ci njabootam ay waaye gars yi lii nga xam ne moom la ñuy def bàyyi ba suñu bàyyi dee ñu doog ko wàcceel kaamil suñu yaay dee ñu wàcceel ko kaamil ay waaye nañ leen ko wàcceel jamono ju ñuy dund nañu wàcceel suñu soxna yi kaamil nañu wàcceel suñu njaboot gi kaamil nañu wàcceel ku ñu am di jàmm kaamil te mooy ñi fexe ba li yàlla wax ci kaamil bi ñu daal di koy jàng ba xam ko mooy ci lii mooy la nga xam ne mooy jëriñ suñu borom nee na alquran ji li tunzira man kaana hayyan dama ko wàcce ngir ñu waar ci ñuy dund amma bàyyi ba bàyyi dee nga dajale équipe kaamil ñu dajale ngañam ngañam ngañam ngañam trente mille ñu ne wàcc nañ fa kaamil ah année prochaine ak ñu dajale wàddeen wàcc nañu kaamil mbokk loolu ëpp naa def kaamil bi mi ngi ñeel ñiy dund alazina yumassikuuna bil kitaab ñi mooy tiire bi yàlla bi te mooy gëm ko jàng ko xam ko taxaw ci ay ndigalam bàyyi ay tereem borom bi subhanahu wa taala nee na ñii di yéwénal day du ma neenal seen benn jëf yàlla na yàlla boolu ñu ca ak sunu njaboot ak bépp julit te nangul ñu àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wa ala kulli xaal dafa ànd ak imam bi imam bi yokk julli gi bi mu yokkoo julli gi mu dem di sujud qabla salaam te dafa waroon sujud baada salaam mooy bi mu sëlmalee ba pare bi mu gisee imam di sujud qabla salaam moom àndul ak moom mu bàyyi ba imam sëlmal muy doog a sujud mu ne ndax lim def noonu la déedéet lim def du noonu mbokk imaam boo àndeek moom lu muy sujjuut da nga cay ànd ak moom borom xam-xam yi am nañ ixtilaaf ci sujjuut ci julli am na ñoo xam ni dañ ne sujjuut yépp xabla salaam la am ñoo xam ni dañ ne sujjuut yépp baada salaam la doonte ne la gën a dëppoo ak jub incha allah te mooy mazhab Malik mooy boo yokkee nga def xabla salaam boo wàññee nga def baada salaam ndax loolu lañ gis njàngalam yeneen bi waaye ah waaw boo yokkee nga def baada salaam boo wàññee nga def xabla salaam waaye boo àndeek imaam imaam lu mu cay def rek ànd caag moom di def loolu loolu la ñuy wax ci manière générale donte ne ne imaam bi ci boppam mën na am sax moom it mu wax dëgg même buy jëfandikoo mazhab Malik ndax bu doon dafa wàññi dara ci julli gi loo xam ne moom moo ko xam ba pare yokk ñoom dañ naan bu dee da ngaa yokk wàññi xabla salaam ngay julli waaye daal xabla salaam ngay sujud waaye daal ci gàttal pour bañ polémique di am ci jàkka yi soo àndeek imaam lu mu sujjud sujjud ko soo koy laayee biir gannaaw nga laayu ko biir wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw waaleykum salaam imaam wa ala kulli haal imaam du am mag loolu li muy firi rek mooy imaam dee su ko jiitu jeex na dee su ko jiitu am na ñaar yoo xam ne moom boo ko ca jiitoo julli ga yàqu na soo ko jiitoo ci takbiratul ihram muy kàbbar bu njëkk ba julli ga yàqu na soo ko jiitoo ci sëlmal julli ga yàqu na lu dul nga dabantal ko dabantal ba mooy lan dégg nga ay coow nga jàpp ne imaam kàbbar na fekk kàbbarul nga kàbbar danaa ba nga yéeg doog a dégg imam kabbar na su boobaa da ngay bàyyi sa kabbar bu njëkk ba kabbar kabbaru ñaareel ñaareel ba it yaa nga ca gannaaw toog mujj nga dégglu benn bruit nga jàpp imam sëlmal nekk te sëlmalul nga sëlmal bi nga sëlmalee imam sëlmal da ngay wëlbati ko waat sëlmalaat amma yeneen yi nga xam ne nii mooy ci biir julli gi loolu moom dana wàññi yoolu julli gi bu baax ci yow waaye nag duñ ne day yàq julli gi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal kon mbokk man manes na doyloo loolu di ñaan yàlla defal ñu afiye fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain